eh. xamul dara soob maan la. sama caméraman sama caméraman temps yi day rapport. du dara muus maamul genn la Fatim. non pour taxawal nag. daa bëgg eh assuré na dégg ko gaañaa ngi yuuxoo. mais door na kuubu dala. maa ngi bëgg kontaan. xoolal sa Tapha taxawal. xool waay taxawal taxawal waay. non Abou Ndiassé daggaat na léew tooba. xoolal Tapha Gueye waaw. da koy jaxase jamono jii nii rek pour nax ko rek. daf ko bëgg a jaxat. Moustapha Gueye da ko bëgg a nax nii rek jàpp. Abou Ndiassé. Fatim lii neex la waay Fatim. pour lii neex. Tapha taxawal Tapha nag mu ngi bëgg a nag Fatim. waa lay jaay lu ko yóbbu ci Tapha Gueye numéro 2. <laughs> mu ngi bëgg a saboté mu ngi saboté Fatim. nee naa leen lan moo ko yóbbu fecc ma xoola fecc ma. xoola nax ko la nekk nii si nax ko énervé ko jàpp ko daan ko jeex na. nee na gars yi jug leen nee na stade bi jug buur ma ne su ma reporter nee na stade bi jug leen waaye na taxaw bu bëggee stade bi jug day taxaw. <laughs> yëpp na taxaw. waaye Tapha sa xaalis dara jeex. day génn. day day génn génn. ndaw na génn na combat bi jeex na. jeex na combat bi jeex na combat bi jeex na ñoxor nee na ñoxor nee na combat bi jeex na wala Max Mbergane la Max Mbergane